incha allah. RFM matin 7h40 sunu gan tey Doudou Sidibé salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal jàmm du nuy Georges yow yaay euh, président parti politique bi ñuy wax euh, rassemblement populaire pour le développement DEFCO euh, di parti boo xam ni kon bi nga ko jiiteeg léegi yéen ngi raam di ñëw ba sax nee nga da ngay bëgg bokk ci élection déwén yi élection falum jiite réew présidentielle. laaj bi njëkk Doudou Sidibé mooy lu tax nga bëgg bokk. waaw lu tax ma bëgg a bokk moom mooy euh, bëgg a contribuer rek ci développement wu Sénégal e que suñu parti bi ñoo ngi ko créé en 2019 mais euh, man yàgg naa ci langue politique gi depuis très longtemps euh, def na mouvement élève mouvement étudiant et puis milité pendant longtemps en France. Euh, ci parti démocratique sénégalais ba nekk ci euh, président des cadres euh, du PDS en France donc lu jëpp foofu laa ko defee donc jot na tey nag suñu parti présenté candidat à l'élection présidentielle muy man lu tax nga beru. ci sa candidature bi euh, ndax euh, projet yi nga xamante ne euh, teg nañ ko ci table bi ay parti politique teg ko ci table bi surtout ba nga bokkoon danga nga cee gisatul sa bopp. non ba ma bokkoon lu tax nekkatuma ca parce que dañu ànd ak wàdd bi ñu nekkee xale ah depuis étudiant ba benn moment ñu xam ne moom wutatul dara ah ñu màgg ñu nit am expérience bëgg tamit demal suñu yoonu bopp parce que ku nekk am nga sa style. Euh, am nga façon boo mun a jëriñee Sénégal euh, ñu créer suñu parti et puis euh, rassembler d'autres personnes yoo xam ne ñoo bokk lu ñu gëm mais loolu moo tax du question que dañu bàyyi parti boobu parce que dañu fa am problème wala déedéet. oui mais projet bi gisatu leen ci seen bopp. non c'est pas forcément sax hmm. xam nga politique dafa am diversité. Hmm. dafa parce que tey nii su ma jaarul woon PDS bu ma ñëwee ne dama bëgg. Euh, nekk candidat nañ ma reproché ne ma amuloo expérience politique du terrain et cetera bien que euh, maa ngi jàngale science politique mais ba tey nañ ma wax ne loolu manqué na la donc il fallait que ñu jaar ci loolu te boo jugee ci mouvement élèves étudiants euh, suite logique bi mooy nga adhéré ci parti politique boo bëggee continuer di di jariñ askan bi servir askan bi voilà. PDS nga bokkoon. Laye Wade jiite ko naam nam ci doon yëngoo yëngootu ci ndax. Euh, ay atam ak li mu nekk président 12 ans euh, mel ni Karim Wade moo gën a fës ci parti ba léegi moom daf laa doyul wala. non du question doyul <laughs> sama bopp doy na ma Wade doyul na ma mais après bi ma demee ba màgg. waaw mooy laaj bi ba mën a xal sama yoonu bopp. xanaa Karim du lay wàdd non Karim du lay Wade. Hmm. non bokkul bokkul de lay wàdd lay wàdd la Karim wàdd Karim Wade la. bon du ma dugg ci détails yi parce que démocratique Sénégal ba euh, dañ naan baay baay ja doom ja. non mënul demee noonu baay ji dafa am jaar-jaar doom ji am jaar-jaaram du dëgg waaw ñun baay ji nag moom la ñu xamoon mu nekk fi opposant historique euh, vraiment euh, mu tax ba démocratie progressé fii ci Sénégal ñu ñu nekk ndaw waa doon bañ gis kuy bañ ñu topp ci moom ba jàng ci lu bëree bari mais boo jàngee ba dem ba benn moment nga yaakaar que ne mun nga ber sa daara mais da ngay ber sa daara loolu rek la. am na euh, am na ku obligation topp ci keneen wala toog ci parti éternellement. am na ku kon ak Laay Wàdd euh, mm-hmm. ber daaraam ñu naan kon Macky Sall laaj réew mi ñu jox ko ko waaye ñu bëri jàpp nañ ni doxalul euh, noo gisee moom taxawaayam li mu def fukki at benn yi mu jiite réew mi mu dese ko benn at ci mandat bii mu ne ñi naan dernier mandat ñi ne mën naa yóotuwaat. Euh, noo gisee taxawaayu Macky Sall tey ak euh, li muy def fan yi woote dialogue euh, ñuy lam-laamee ba xam day bokkaatam du bokk mu ne du ci waxagum naam waxoon na bu yàgg ne sax bokkul waaye fan yi moom waxaguma lay wax te waxoon na loo gisee loolu yëpp. waaw suñu démocratie jamono yi ñu toll mu ngi ci xottu gerte comme ni ma ko waxee ci discours investiture bi notre démocratie est en danger. parce que tout simplement euh, troisième mandat mënu fi amaat ndaxte euh, dañ ci débattre avec Ablaye wadd euh, mu nekkoon lu bees nit ñi xamuñu ko mais xeex nañ ko quand même ba jëm na population bi décidé mais Macky Sall ñëwaat ne dafa bëgg indiwaat loolu je pense que dafay tardel Sénégal dañ nekk ci benn recul démocratique dafa mel dañu delluwaat ci at yu bëree bëri bëri ci ginnaaw et que situation bi ni mu tenduwee nii je pense que loolu moo ko indi position de nii oui nii non alors que mënoon nañu xam tey nii ndax président dafay dem wala du dem parce que constitution bi leeral na ko mais moom mu ngi langaamu toujours ne dafa bëgg a dem euh, loolu euh, moo tax situation bi euh, difficile trop waaw ba mu ne day woote dialogue mais ci dialogue boobu man honnêtement gisuma ci sincérité voilà suma ci sincérité parce que premier marqueur bi moom mooy mu ngi wax jaloog mais boo ko interviewé boo ko seetloo benn moment nangul tudd turu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tamit mënuñu ko génne totalement ci dialogue bi parce que opposition la bokk euh, te nit. mais mën ngaa woote dialogue te doo tudday tur ndax ku tudday tur moom. doo doo noppi. non waxuma ci dialogue bi waxuma ci dialogue bi rek mais hmm. interview yi muy def. dañ koy poser question jëmale ci côté boobu mais dina fexe fexe ba du tudd turam loolu dama ko seetlu parce que damay def damay jàngale négociation gis nga relation entre ñaari nit. suñu baaxul professeur relation internationale nga. exact mais euh, diggante Ousmane ak Sonko ak Macky Sall moom euh, diggante bi dafa tar. lool euh, moom muy moom di Ousmane Sonko ñoom daal seen seen diggante yéeme na. yéeme na fi mu toll fi mu toll nii dafa dafa garaaw. voilà te li ma xam ci négociation wala dialogue. bu relation yi baaxul entre ñaari nit foofu dialogue mënu fa am d'ailleurs looloo tax sax ñuy wut médiateur pour mu fexe ba ñoom ñaar ñu rétablir la communication parce que entre ñoom ñaar rek duñu wax dara te nag euh, mënoon ak léegi ne da ngay dialogue ak nit te doo wax ak euh, wax ak moom c'est pas possible donc au moins bu defoon benn pas tudd turam euh, ci biñ ko ko laajee pas forcément ci bi mu wax ci jaloog bi mais ci yeneen sujet yu ñu ko laaj da ngay gis ne que am na benn genre maanaam xeebeel wala mépris boo xam ne voilà ba du tudd turam waaw donc te loolu mënul ànd ak dialogue waa il faut nga def benn pas aussi wane que ne euh, am nga bon intention pour euh, dialoguer pour trouver une solution mais même bu ko bu ko defoon sax man je pense que instant bi euh, Macky Sall su ne woon rek du man du candidat foofu dialogue amut fa place voilà ñi war a dem dañuy dem waa donc euh, euh, dialogue bi pour man euh, leer la naxaate la. kon yow dialogue bi sa sa parti du ca bokk. no gëmuma ko sa sama parti du ci bokk parce que dama gëmul ne que dialogue bi am na sincérité. seen F24 moom déggoowuñ ci mbir mi. waaw ah, déggoowuñ ci parce que F24 aussi charte bi ni mu tëddee dialogue nekku ci comme dialogue nekku ci. ku nekk mun nga def la neex. dialogue bi kay dafa mel ni sax intérêt sénégalais yi nekku ci ay politiciens ñoo dajaloo rek di diil seen diil damay bokk ak xalifa ne ne moom na bokk rek ah euh, bokk ci élection yi est-ce que ça loolu tamit euh, euh, par rapport ak askan wi ni ñuy tegee bët politiciens yi jaadu na ay politiciens ŋàbb réew mi damay dialogué ñuy waxtaan te amul dara lu ci yokk ci poosu askan wi lépp seeni intérêt képp la ça aussi. Euh, homme politique sénégalais yow ci nga bokk ñeneen ci lañ bokk mais c'est vraiment compliqué quoi. waaw bon mun naa la nangul dara mooy que euh, politique dafa xaw a tumuranke euh, même ci adduna bi ah du Sénégal rek lu tumuranke politique ak homme politique yooyu des fois image bi dafa doy waar perception bi population yi di am dafa doy waar parce que aussi des fois am na ci ñoo xam ne dañuy comporté woon noo xam ne du du tax nit ñi ñeme politique. mais politique buñ koy xool lu baax la ah. bu fekkee dañ ko jubal def ko normalement ba ñu nekk ci ay deal ah, nekk rek ci soxla askan bi tu te ñun suñu parti loolu lañu ñu bëgg a def vraiment euh, indi genre politique bu bees euh, nekkuñu ci ay deal wala ñuy dugg ci loo xam ne euh, askan bi xaaruñ foofu askan fu ñuy xaar mooy seeni problème ñu jëm ko xam te buñ ko xamee aussi ñu jëm ci proposer ay solution voilà man loolu laa xam ci politique mais euh, ñeneen ñi def leneen aussi bon peut-être que seen responsabilité la un jour ou dinañ ko mës a assumer ji voilà parce que peuple bi aussi ñoo ngi yeewu képp koo xam ne rek euh, yaa ngi def loo xam ne waroo ko def ci politique euh, bis dina ñëw population yi dinañ la peut-être sanctionner voilà parce que ñiy def su may citer mburoog soow ak ay kenn xamul voilà yooyu booy déglu population yi parce que damay dem ci population yi di leen déglu mais. souvent même ba ca Gloria. voilà souvent de loolu day ñëwaat. mais léegi troisième mandat bi nga xam ni euh, mën naa indi problème ci Sénégal euh, nan ngeen war a def ba Macky Sall du ko du ko xalaata def. waaw mais lutter dañuy lutter déjà man signé naa charte F24 bi donc euh, le 12 mai war nañu organiser. Euh, benn manifestation déjà pour wane que ne loolu ànduñu ci voilà et que population bi aussi ñu yee leen ci que ne Macky Sall je le président Macky Sall amul droit ci troisième mandat te waru ko forcer parce que bu ko forcer mën na indi jëye ci ci réew mi ndax dëkk yu bëri li fa indi euh, xeex moom mooy euh, nit yi di ñaxtu ñu réprimer leen def répression ak ak ak police. Euh, benn moment am ñu ci ñàkk seen bakkan loolu choqué population bi ñu euh, daal di réunir ne dañuy décider créer benn milice euh, dem xeex ak gouvernement bi et puis guerre civile ñëw voilà nit ñi nag bu ñu foog nekk Sénégal mën na mucc ci loolu parce que am na jàmm wala nit ñi jàmm lañ bëgg et cetera loolu ñëw na ci dëkk yoo xam ne moo ëppoon jàmm Sénégal donc fépp la mën a dugg donc bu ñu ko jéem a bu ñu yee fitna président Macky Sall depuis mille mu ngi ci pouvoir ànd ak Wade pendant 12 ans ba pare moom it am na 12 ans. franchement maanaam ñaar fukki at ñett ngi nii Macky Sall mi ngi nguuru. mu ngi nguuru waaw. dafa doy nag Sénégal yi dañ ko jox yépp lañ ko jox. directeur général ministre président assemblée j'en passe euh, nit ñi xam nañu parcours bi mais lu ko sénégalais yéene woon yépp jox nañ ko ko moom nag moo war a delloo njukkal sénégalais yi bañ fi yee na voilà parce que benn instant du moom rek moo am compétence ci dëkk bi am na ñeneen aussi ñu mën a yor Sénégal voilà bëri nañ fi mais boo nekkee ci nguur da ngay foog ne yow rek ci indispensable mais boo demee ci cimetière yi am na ñoo xam ne ñoo ngi foofu tëdd euh, dina law te dëkk yi ñoo ngi continuer voilà te ñu xëy na ñenn ñoo sos dëkk yi wala def nañ fa lu am solo moom it yaakaar na ni moom rek moo fi nekk loolu moom rek nekku fi. entre déclaration de candidature ak candidature fossé bi dafa rëy. Euh, na. yoon wi aussi gudd na yow sa déclaration ci déclaration la yem parce que yenn saa yi dañuy dégg ñi nga xamante ne dañuy def déclaration ca cappaandaw ga euh, euh, buñ demee ba xam ne mënuñ coo mënatuñ du ñu bokk jéem a négocier ak ay nit ñi nga xamante ne fës nañ am tur ànd ak ñoom ci euh, ci élection bi maanaam ci wàllu calcul. non calcul ay. yow da dem jusko bu wala. parce qu'il y a également mais, mais le, le filtre des parrainages ah. absolument am na mais man sama intention mooy dem jusko bu d'accord moo tax ma déclaré sama candidature bon su ma nekkoon ci ay jéem a négocier yooyu kon mun naa négocier bu yàgg sans même ma am parti politique du dëgg voilà mais dama am ambition pour Sénégal moo tax demuma ci parti politique yi ma créé sama parti politique nekk candidat di construire sama candidature pour mu nekk une réalité jaar ci processus boobu ngay wax pour nekk réalité mais euh, mën nga ci jaar te doone candidat am na ñoo xam ne jaar nañ ci am lu ñu war a am yëpp à la fin ñu ne leen seen euh, parrainage yi matul wala baaxul mujj ñu nekk candidat loolu mën naa am après ñu obligé dem ci ginnaaw kenn wala ñu bank seen loxo c'est un choix. parrainage nag yombul mais boobu. parrainage nag yombul. non parenage yombul mais de plus en plus nit ñi ñoo ngi koy euh, ñoo ngi koy am et puis euh, ci charte bi également wax nañ ci ne dañu war a dindi parenage parce que parrainage bi xam ngeen li ci CEDEAO wax mais teewul président Macky Sall mu ngi insister bëgg ko def. te bi mu koy def xam nañ ne que c'était pas forcément pour l'intérêt du Sénégal mais euh, intérêt am lool euh, bëggoon éliminer euh, ñi nga xam ne ay peut-être entre guillemets ay dañuy capter yenn voix yi. mais mais loolu rek loolu rek nag jaroon na xëy na dem ci dialogue bi peut-être négocier affaire parrainage yeeg yooyu buñ ko dindi itam ñu xoolaat ko am déet. man en fait honnêtement je reviens à mon idée première mooy amu confiance ci ci dialogue bi en fait voilà. parce que su fekkoon nag am na sincérité dialogue bi mënoon na commencer bu yàgg yàgg voilà mais du ñu bàyyi ba nga xam ne situation bi c'est tendu e que bu ñu demee dialogue forcément dinañ ko jéem a baisser tension bi euh, mu négocier ba gis porox ndol bu mu duggee ne candidat la loolu baaxul loolu arrangé wul ñu voilà. Mhm. mais euh, Doudou yow euh, est sa candidature dina mën a yemb ma fàttali ni. jamono nekkoon nga sax journaliste ci l'info 7 ci jamono bu yàgg. te dégg naa sax yow passeport tubaab nga am passeport français te boo bëggee nekk candidat Sénégal nag. passeport Sénégal rek nga war am. loolu moom noo koy doxalee. ah yow foo foo déggee loolu. Ah, dëgg nga ci ay gëstu rek. ah ban gëstu. da ngay confirmer ou pas. Ah, non am nga passeport français wala amoo passeport français. mais mais yow waxal foo koy déggee ba pare. déedéet loolu amul solo parce que comme comme da ngay coytu. non wax ma rek ba xam. te te sa nationalité française bi nga am. ñu ne am nga ko mën naa la wax que ne. Mhm. même ku am nationalité française bu ko neexee mu révoqué ko. su su bindee su bindee rek ne bëggatuma ko. léegi est-ce que est-ce que loolu ci minute bi ñu dindi ko. est-ce que nga fas yéene def man du ma wax ci loolu parce que euh, da nga may jéem a coytu. dee walaay sax. non non da ngay coytu parce que amoo ci benn euh, <laughs> lu la leer voilà instant bi ci lu ñu toll moom mooy euh, déclaration candidature et puis nga construire sa candidature démb maa ngi jógee Sokone dem ci population yi di wax ak ñoom ak Kaolack bërki démb maa ngi woon Waalo di wax ak ñoom pour que ñoom ñu mën ma miin xam ma. pour bu parrainage yi jotee ñu mun ma signaler voilà ma mun a construire sama candidature ba nga xam ne bu ma déposé dinañ ko accepter voilà ci état boobu laa toll ci laa concentré wu voilà. mais mbirum euh, nationalité boobu am na am amut wala da ngay xaar ba ci cappaandaw ga nga doog ci àddu. exact damay hmm. xaar ba mu jot. mën naa la loo xel yi parce que parce que ku nekk yaa ngi ak sa stratégie. Hmm. parce que bu fekkee am na ñoo xam ne dañu yaakaar loolu bu bëgg ma gàllankoor. Hmm. mais su ma teelee wax nii euh, kon du baax dama leen bàyyi ba ñu nekk ci nekk ci nekk ci à la fin euh, xëy na ma dégonflé euh, huile bi. kon am na. non non non non juste non pour pour wan leen li ñu xalaat ñoom ba nar ma gàllankoor mais voilà ma njuy leen. yow fa kan kan nga gën a jege nam sa parti nga bokk tey ji bu ñu demoon ba gàllankoor la euh, nga war a xëy na jàppale kenn yow kan nga gën a sentir kan nga gën a jege ci opposition bi fii nu toll nii. non man jegewuma kenn. sama bopp laa jege d'accord euh, opposition laa nekk am naa chance comme tout le monde damay continuer samay chance ba fu mu yem d'accord mais xalaatuma ci moment bi naan damay ànd ak ma sàmba wala ma dem ba parce que ma sàmba wala ma dem ba wóoru ko sax ndax dina nekk candidat kenn xamul gul kenn mooy nekk candidat officiel je veux donc mun ma wax ne ay damay ànd ak sama bopp laa àndal kon maanaam da nga jàpp ni ñenn ñi euh, ci wàllum politique léegi mbirum idéologie ci ginnaaw développement moom moom moom moom moo la ñor. non mun ngeen mun ngeen euh, bokk idéologie te du ngeen ànd. tey nii PDS ak euh, Macky Sall benn la woon mais ànduñu am na diversité. mais sori wontoo ñu. ah sori wontoo ñu mais ànduñu c'est-à-dire que un moment donné ku nekk da nga am loo yéene Sénégal nga bëgg ko def ak sa style. ak sa parcours sa xam-xam et cetera nga xàll sa yoon et puis sénégalais yi ñoom ñooy tànn ku leen neex ah, ñu fal ko donc am nga droit yëkkati sa loxo ne man dama bëgg lii waaw sénégalais yi xool. déglu sa discours déglu sa programme et après ñu fal la. Hmm, Macky Sall le jeu est ouvert ah. Macky ak ñi muy dialogueel ñu ngi dégg ñuy laam-laame ci dëkk bi ne boo deful nank dañuy pousse élection présidentielle beeg yooyu loolu moom est-ce que moom loolu moom normal na bu fekkee lu lu lu nekk seen xel la. mais lan moo war a mun a tax ñu pousse élection présidentielle. parce que nañu waaj daa bëgg fekkee pétrole beeg BRT beeg chantier yi mu sumb. est-ce que loolu tamit vraiment. mais mais dafa am la ah. continuité de l'État fii munoo fekkee lépp parce que euh, je pense que sénégalais yu bëri bu fekkee ne que ñoom mënuñu fekkee dara duñ ci duñ ko sos voilà da ngay ji sa garab arrosé ko mu sax nga lekk fruit et cetera après daal di koy gor matt gi boo mënul def loolu soog a dee. doo ko doo ko def. Hmm, jërëjëf te dañu war a nag euh, di liggéey pour askan bi ëllëg. jërëjëf euh, Doudou Sidibé njiital euh, parti bi di rassemblement populaire pour le développement DEFCO candidat déclaré à la présidentielle de 2024 ñu yendoo ak jàmm. merci beaucoup Babacar jërëjëf Georges ñu ngi ziar soxna Naata ñu yendoo ak jàmm. merci beaucoup Babacar Fall de Détié Diop ak euh, seen gan di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ak programme rajo Futurs média ñu dellu si ci ñaareelu euh, pàcc euh, info ci kanam bu leen fàtte Souleymane Niang dina fi teew ci jàngat bi tey jële mu fas yéene waxtaanee ci enjeu formalisation bu informel ci kanam lay doon buñ ca noppee dinañ dalal Bamba Fall di maire bu Médina Ibou Diouf itam am na focus culture bum ñu defal tey jële ci ki nga xamante ni moom mooy Déthié Fou Ndiogou Fall maanaam waxtu tuuti ci histoire u ci kanam tuuti lay doon léegi léegi dañuy jàll ci xibaar yi yaatal ko ak Cheikh Tidiane Diaw